jëmmi melokaanu ku bëgg a màggali doo war a mel ndax sëriñ bi nee na dee leen siyaare di soxna si ndax ku ne fa jàng ma fekk la fa mel na ni nag melokaan bi ci jiitu mooy te addabu fi alanin wa fi sirrin wa alan bi ci jiitu mooy amee teggin yu mat sëkk jiital ak wegeel akuk dal teewal ci sa xol yéene ju rafet ni maa ngi ziyaara ji soxna soo xamante ni li tax ñuy wax yoonu murit tey ba ma nekk murit soxna soo soo ko waral la waaye maa ngi ziyaara ji soxna su am pëstéef ku jàmbaare te amul dogu ku mën a muñ te xam fa mu jëm te am yitte ju kawe ziyaarekat bu ne boo dee dem Poroxaan man ngaa làmboo melokaan yooyu boole te tamit jéem a yërëm képp koo xamante ni féete nga ko tu tànk féete na la tu tànk foofa waaye taxaw temm ngir jéem a wekk képp koo xam ne mag na la foofe jéem a taxaw ci yoon wi tamit képp koo tane ci oto yi di dem nga jàppale ko ca ci noo ko mën a dimbalee liggéeyal ko ci yoon wi sa kemt lay kattan bu fekkee ni kuy jënd la te nga sës ci weer nga jàppale ko jël xaalis ba jëndali ko bu fekkee tamit ku panne essence la te nga yor oto nga jàppale ko ba jàppandal ko ca loola ak lépp loo xam ne ab liggéey la ci diggante yoru tukki jëmmi nag barab yi nga xamante ne moom la ñuy ziar ca Porokhane barab soxna si des na ko ziar waaye mu am ay teggin yoo xamante ni boo dee ziar di yow mi ziar di war ngaa lamboo teggin ya bi ci njëkk mooy bala ngaa julli ziar di barab soxna si na nga jàpp ba sell ndax dañuy wax ni bokk na ci njàpp yin sopp boo dee jàpp boo dee ziar di wàllu yi da ngay jàpp boo jàppoo ba sell nag. waajal ni yaa ngi ziyaara ji soxna si nga yar sa doxalin dox bi ngay dox di waaxu di dem ci barab bi doxin wa daa nekk war a nekk doxin wu teey wu yaw sax bàyyi xel jël sam xel teewlu ko ci liggéey soxna si boo duggee ci barabu soxna si ba toog nga jéem a jàkkaarloo penku nga jàkkaarloo penku bi nga ni boo toogee fi nga duggee dangay fexe ba boo toogee dangay ngay jàkkaarloo penku xabru bi nga ñaan fa sun borom subhanahu wa ta'ala mbolem luy sa aajo bo ñaanale sa bopp ba noppi ñaanal say ñaari wayjur ñaanal julit ñépp rawante naag tànneefu julit yi waaye nag loolu mooy liñ sopp bëgg ko nga def ko ca barab ba waaye nag nga wattandiku lii nii ndax lu bare bare dañ ko fay def te nekkul nag loo xamante lu gën la nekk ci barab bi bu mu tax nga waxtu julli ziyare barab bi bu tax nga sant waxtu julli ndax ziyare ji dafa wara and ak respecte tamit norme yi nga xamante ni suñu borom mo ngi koy doxal ci doom jaam bi ba loola mëna fekk ak ràngalum xat-xat-xat bu nodde da nga wara nga def lepp dem julli ci ndax tahidu fi salawatil khams takum la takum lakum nuran ka nuris sams serigne bi moo ne na ngay farlu ci julli juroom ndax day nekk leer ëllëg bu ñuy leeral suñu digganteeg siraat ak àjjana jën jëm beneen bi ci des ñu war ko wattandiku mooy xale yu góor yi ndokk sax yàlla dimbali nañu ba ziyaar ba góoru jigéen duñ tàmpaloo ndax sàppe ga jëm ca jigéen ñi ak sàppe ya jëm ca góor yi bokkut waaye ñuy wattandiku lu bari rek xëtt sàpp boobu ba góor di wattandiku joññanteeg jigéen ndax rafas ñu naan ko yaram muy laalante yaramu jigéen ci góor ak jigéen day indi jafe-jafe ci lislaam ndax lislaam diglewu ko waaye ñuy wattandiku tamit buñ duggee ci xabru ba na ñuy wattandiku jël suñu loxo di ko raay ci kaw miir bi ndax sëriñ bi wax na ci diiwaan bu mag bi seen Abdullahi Lahat la nee na raayi miir moom moo jaamu xërëm sorantewul raayi miir ci ay xabru moo jaamu xërëm sorantewul kon nekk na lu mu tere gannaaw bi ñu ko jële ci njàngaleem borom ma daxal mooy al sahibul haj nan ca watandiku tam di sujud ndax buñ duggee ci xabru ba difa sujud ñax ñi contre yoonu murid dañuy am lu ñu nak ndax da naan ñoom dañoo jàppe seen xabru yi muy jàkka te yonente bi tere woon na ko jàppe xabru muy muy jàkk bokk na ci li ni watandiku watandiku nan lool mak mu doy ni soxna jaariyatullahi bisu waliyu yàlla bu tol noonu watandiku nan ngay ñëw di wër xabru ba ndax mag bu tëdd gone mag bu tëdd gone di ko wër ñaareel ba tamit yow mi siyaare boo ñëwee fekk doomu aadama yi toog bokkul ci tegginu siyaar nga jéggat doomu aadama yi di jéggat bay jéggi doomu aadama yi di leen lor kooku tamit bokkul ci teggin yi kon na bàyyi xel bu baax a baax teggin yi ñu wax ni boo dee siyaare de moom nga war a def te nag diir bi nga nekkee ci poroxam na ngay taqoo julli mbooloo waxtu wu ne na la yàlla dimbali ngay julli ji ca jumaa ja wala ngay taqoo julli mbooloo ndax da ngay profité ci jataay boo xamante ni jataay la bu bu la rëccee bala nga ko amaat nat lay doon li wër xabru soxna si na nga def sa kentulaay kàttan sàmm orma ji nga xamante ni moo ci wax mooy taqoo di xalaat sa digganteeg sa borom waye takko di xalat wegeel gi la war sa digganteeg soxna si na ngay takkoo tamit jéggalul sa borom subhanahu wa taala dëkke wérdu ak dëkke jàng alquran ak sikkar ngir jéem a sàmm wante ak li nga xamante ne mooy war may diggante barab bi ak fi nga nekk boo siyaaree barab soxna si ba génn eh, am na fu ñuy wax xabru soxna jaar eh, xabru eh, bàmmi armeli poroxan sëg ya Porokhane am na ay armel nga jéem a dongo yu bari nag réer nañ armel ya nga jéem a gëstu armel ya ndax ay nit yàlla fa tëdd ndax lu baree bari ci ay kilifa suul nañ ci armel yooya ba benn bindikat nee na du fi na fi maqbaratin qawmun kasir min usratin manzaruhum yalqa gazir suul nañ ci biir xabru ya nit yu baree bare bare yoo xamante ni képp ku leen ziyaara ji da nga dajanteeg may bu baree bare kon bo génnee ci barabu soxna ci rek demal nga ziyara ci barabu armel ya nga xamanteni moy mooy armel Porokhane fofu tamit bo démé na nga teewlu ci sa xol bo dé dugg teewlu yalla yi kessé te gëm ni ñi tedd fi ni lu mu yàggee da leen fex tegg na kuy ziyara xabru nga nuyu ñang fa fek assalamu alaykum ya dar khawmin wa inna insha allahu bikum laahiqun ni ko yonente bi sallallahu alaihi wasallam sallam nga nuyoo leen noonu wa ataakum maa tuuaduun gadan mujilun wa inna insha allah bikum laahiqun allahumma ighfir li ahli maqbira noonu nga xam ne noonu lañ jàngale ci lislaam ni boo duggee ci armeel noonu ngay nuyoo nga nuyoo noonu waa armeel ya waaye bokk na ci li lay wattandikuloo nag ci armeel bul bind sa tur ci kaw bàmmeelu jàmbur yi bul bind alquran tamit ci kaw bàmmeel yi bul tibb ca suuf sa di ko lekk bul jël ca doj tamit di ko bi ndax loolu bokkul ci li nga xamante ne am jàngale la li fekk nekkul ne barab boo xam ne barab bu wàllu mag la kooku moom jël ci suuf sa taw feex rek la lay jural mën nga cee jëriñu